dina sedd ndax maa ngi fàttaliku guddi guñ ànde woon ba dal kër soxna Ndeyloo du ma ko fàtte Abdourahman vraiment mu di ñu dénk mhm. xamee itam ne ñun ñaar suñu ànd neex na ko ndax nee na man sama jikko def ko neex mhm. kon xëy na soppeeku bu amoon ñun ñaar duñu ànd ndax nit ku ne la nga nàmp moom ngay euh, toqamti ko mhm. te xay na yow li nga nàmp ci sa waajur mooy dëggu ak euh, itam ak nekk ci euh, dëgg ak nekk ci loo xam ne lu wóor lay doon kon su fekkoon ne loolu xëy na euh, nekkatul ci ñun kon xëy na doo ànd ak ñun kon ñu ngi lay ziar baax di ziar mboolem euh, ñi ñu déglu ci dëkk bi di ko njëkke ci euh, xalif bi di ko ñaanal mu yàgg loolu te wér ku tardé cim xëy nag da ngay farlu cim ngont waaw ah, wolof de wax na loolu ndax xëy na tardé nañ ñu ngi jégalu bu baax a baax ci tardement boobu am te sabab sababluwuñ ko ndax ñàkk a la ci ay kàddu waaye xëy na njuumtale ci man la ne. kon maa ngi ciy jégalu baax di fas yéene itam siq ak yéen ci waxtaan wi nga xam ne ñu ngi ko bëgg a siq ak nun ak ñi ci bitti. kon mi ngoog ndeysaan ñu ni neen daa amatul nun kii ñun ak yéen xaw ma. waaw nun ak yéen day amatul. Hmm. xëy na jombul dina ñëw comme ñun ñoo ko kere woon. Hmm. jombul xëy na dinañ ko def feneen. wala ñu suñu émission bu invité woon. mooy li ma la wax rek gis nga euh, déggoo dafa baax ci mbir émission boobu benn la fi te dootu fi amati mm-hmm. ndeysaan sama góor gi euh, moo tax gis nga Sénégal mm-hmm. am nañu ay jàmbaar yoo xam ne seeni mbir seeni wax lu mu yàgg-yàgg day des téex mm-hmm. émission boobu ba léegi téex la lu fi des loo xam ne soo demee danga ko fa fekk euh, émission boobu da ko neexoon ba bi mu faatoo clé USB bi nga xam ne 1000 giga la. Mhm. émission boobu mu ngi ci biir. Mhm. Mame Baye Fallou waaw. ndeysaan émission boobu. wolof rek lañ doon waxtaanee. Mhm. yéen ñaar. waaw ndeysaan rek. ah di la ñaanal rek suñu boroom guddal sa fan guddal suñu fan ak mboolem ñi ñuy déglu ñëpp. ndax nit ki dafa war di nab nabi ci lu baax. te bañ a am complexe ñun dañu am suñu mbatit. mooy suñu aada ak suñu cosaan comme ni ñu koy déggee. dañu ko am te waruñu am complexe ba tax ñu koy euh, bàyyi parce que Molière da daan wax naan. Mm. nit ki soo demee ba di ko toppandoo danaan damay ñandoo ni muy ñandoo wala damay xaxtandikoo ni muy xaxtandikoo tax xëy na bokk leen bakkan mm. dafa ngoog. kon ñun li ñu am. Mm. ak li ñu ne buñ ko xeeb ndax moo ñuy defaral tey te moo ñu defaral ëllëg. Mm-hmm. fi mu toll nii tey soo bëggee jàng lu bari ci yoonu sëñ Bamba xam nga sëñ Tuubaa bind na ay arab mm-hmm. sëñ Moussa Ka ñëw bind ay wolofal. Mm-hmm. nga ñëw jël wala fal yi dem jël wala falu sañ bay jaxate nga xam ne yow mi toog yow borom kër gi yow mi yor sa kër mm-hmm. toog ngay déglu sañ bay jaxate moo lay yar di yar sa njaboot mm-hmm. kon bu ñu fàtte li ñu am bu ñu ko bàyyi noonu itam na suñu mag ñii ñuy waxtaane ku mel ne tay Baye Fallou mm-hmm. ku mel ne tey Matar Seck Mboro ak ku mel ne maam Yaxi Laalo ñu mel noonu dañ leen war di bàyyi xel surtout ñun ñi nga xam ne dañ ne dañoo kokk mooy ñun xale yi nga xam ne mhm. xëy na dañuy fréquenté ay mag di toog ak ñoom mhm. parce que man bañ naa ko ba xaritu mag laa ëppale ci lu ma am ci xaritu ndaw kon nañu nañu bàyyi xel ne waruñu bàyyi li ñu moom mhm. tey nag wax dëgg yàlla su fekkee ne da nga ne yow euh, da nga dafa tàng nga ne fii daal tubaab laay roy damay sol costume bu yàggee léegi nga mel ne <laughs> kon mi ngoog genn wàllu tubaab genn wàllu nit ku ñuul un tiers sénégalais waaw su ko defee doo mat nit day fexe mat li mu doon mm-hmm. da koy dégg nit day mat li mu doon loolu nag du ci yamut ciy wax rek daa war a yegg ba ca jëf ja kon tey ñi ngi fas yéene waxtaanee Ibrahima njaay maam yeexi laaloo Modou Diop Thiat sëñ Ibrahima njaay nag lu gàtt rek laay seere ci moom suñ mujj luñ mujj a jokkoo maak moom du ma wax lépp nag waaye dinaa ci mosle tuuti rek mm-hmm. waaj naa nag dem seeti ji ko ba ni mu wuy jee li may wax nii it am na kook seede la ci su may déggee dina xam ne bu yàggut waxtaan nañ ci mm-hmm. ma ne ko dama bëgg wut émission boo xam ne dama ciy ànd ak moom musaguma ko waxuma ko woon nag sëñ Ibrahima Ndiaye mm-hmm. waaye am na kook su dee mi ngi déglu rajo bi ci rajo lay liggéey maa ngi moom waxtaan nañ ci mm-hmm. yàlla xam na ko ci lu ci lu matagul fukki fan ak juróom ma ne ko xam-xam bi mu yor dama bëgg wut émission boo xam ne dañ koy ànd mu ko cay sotti dama def émission Walfadjri kasema bu invité ma te li ma waxit sama wajur sëñ Fallou Cissé ma ko nettali moo wax moo wax na ko Mouhamed wax na ma ko ba mu koy wax Mouhamed bis seede laa Mouhamed ñëw kër ga di jël si olofal RFM mu ne ko lal bii de sa wuyjur toog na fi di ma enregistré yi baati wolof di astaxfirullaa ay lépp ma koy toggal laax Ibrahima Ndiaye maam yaxi laalo mhm. ba muy dekk sama wuyjur sëñ Fallou si sa micro booba sëñ Fallou nekkagul rajo mhm. waaye sëñ Fallou booba li yàlla di def ci moom def na ko ci moom xam-xam baa ngi ci moom booba amagul nag fu mu ko sotti waaye xoolal sëñ Ibrahima Ndiaye ca yéwén ga da daan jógee fa mu ne dem ba jàmm gën booba sama wëju sëñ Fallou Cissé tailleur la woon mu ko mm. fay fekk di ko enregistré mu koy mu koy waxal ay lépp di ko jox ay lépp loolu nag laa netti li ca rajo ba mm-hmm. waaja déglu ko li la léeg-léeg léeg li lay li lay wan ne auditeurs yi léeg-léeg am na ci ñooñ dañuy jaxase mm-hmm. am na ci ñuy defar waaye am na ci ñuy jaxase dañuy dégg wax wala ñu dégg catal wax ja mhm. dem yegee ko kooka waaye alhamdulilahi rabbil alamin ba nga xamee ne man li ma wax xam naa ko mhm. kooko xëy woo ko ne ko yow a ah, xaw ma daa dajeeg moom wala da ko woo daal lu ci mën a am daal wax na ko ko na ko kon yow nekk sa léeb yi nga doon yor sëñ Fallou Cissé la ko jox xam ko toll ni Ibrahima Ndiaye soo ñëwee ne ko sa xam-xam bi nga yor sëñ Fallou la ko jox mhm. te loolu demeewut noona mu woo ma ci loolu en tant que may doomam. waaye li ma ko jàppee mooy su ko neexoon ba ko koo ko waxee loolu comme dégluwut émission bi da koy téye. Mhm. fu mu ma gis ni ma ko xoolee. Mhm. waaye gis nga ko la muy doon doon kilifa doon doon mag. daa mhm. jël téléphone am woo ma suba teel ñaari appel fekk may nelaw yeewoogu ma. bi ma yeewoo ma xool numéro bi ma woo ko. waxtaan nañ keroog pendant trente et quelques minutes. maak moom. mun ne ma dama ginnaaw bu ma jaalee. donte ne nag bi sëñ Fallou nelawee yooyu déggante ci boobu lañ amee occasion déggante mu jaale ma nu waxtaan moo ne ma damaa dégg nangam ak nangam. ma ne ko li nga dégg lu xeetoog wax ji la waaye ni la ko waxee baaxut. Hmm. gis nga ko ne ko lii ak lii laa wax te sama waajur ma ko li ndax am na wala amut mu ne ma waaw bu dee lii nga wax de noonu la demee. Hmm. waaye la kële wax amut ma ne ko kooku li mu wax moom la engagé. ñu déggoo ci loolu. Hmm. <laughs> ñu daal di déggoo ci loolu ma moom. lam ma tegal moo yow sama doom nga. moom mhm. ko wax de. dëgg rek. daal di ne ma del ñëw sama kër ñiy waxtaan. Mhm. ndax léeg-léeg ma dégg la ci rajo bi. galan bii ngay dóor de incha allahu soo ko wàccut. Mhm. mën nañ laa dégg fu kawe. ba noppi it ci laa ne ko sa kër ga nekk daaru fële nu mu tuddee di boori kër Cheikh Béthio daanaa fa ñëw mu ne ma toxu naa léegi maa ngi daaru tanzil ci ginnaaw kaas bi. ma ne ko fan yii fan yu néew bu ma féexee danaa fi yegg si. lii lañ mujj waxante ma ak moom. lii. kon nag mi <laughs> nit ku dëggu la woon ndax dëggoom weesuwul gis nga ko du dëgg ci dëgg ngir dëgg bañ a feeñ bu ko neexoon mu dëgg ci fu mu ma gis di ma ko xoolee mm-hmm. waaye defu ko daf maa yamale comme doomam Mouhamed ndax Mouhamed bu defoon du yoon dana dana ko woo ne ko li nga def du yoon Amadou ah, loolu kon nag yamale maag doomam Mouhamed Mouhamed Ndiaye démb jokkoon nañu maag moom mm-hmm. ma jaale ko nu waxtaan mu ne ma maag yow noo bokk bàyyi ndax bàyyi sama wajur sëñ Fallou Cissé Baye Fallou Cissé la ko Mouhamed daan wax sama doom la ko daan wax. maam yeexi laalo sama doom la ma daan wax. te ñun ñoom ñëpp ñoo bokkoon ci lu ñuy yëngu muy wolof. Mhm. ak mbatid. Mhm. muy suñu culture. moo tax kon mu ne ma maag yow bokk baay. waaye nag mu doon koo xam ne ci moom Mouhamed ci ni mu waxee dawal na taw tawhid ndax la ma njëkk a wax mooy nattal mbir mi ci sa bopp la ma wax. mu ne ma bu yàggul rek lañ la lañ tàggee sa wayjur mm-hmm. sunu wayjur mm-hmm. te moo gën a mettile moo gën a bette moo gën a mettile moo gën a bette moom Mouhamed Ndiaye moo wax ma loolu waaw daal dina ma nag mm-hmm. sa wayjur sa baay Fallou Cissé jàngal na ma lu bari lu ma jàngale waaye jàngal na ma loo xam ne jàngalee ma ko mi ci sama dënn moom ko wax kon Modou looy ñuy wax ci maam ibraahima Ndiaye maam Yaxi Laalo moo la jàngal aar dëgg la waaye ubbikatu bopp la woon. Mhm. moom Ibrahima Ndiaye maam yexe daal ubbikatu bopp la woon. Mhm. bopp yu bari fii tey moo leen ubbi. mu jub caat mii ci la bokk. Mhm. ñu ngi lay déglu. Euh, jërëjëf Arona comme ni nga ko waxee rek li la ci dal man moo ma si dal mooy koo xam ne dafa mel ne da doon tàggatoo ndax man woo na ma sax këram. fekk booba maa ngi ci ay xat-xat ma ne ko su ma jógee ci yii dinaa fa ñëw bam naan ma li ngeen yorkat yow maa ngi lay déglu li ngay def baax na waaye li ngeen yor moo mel noo xam ne nii jar na ngeen di jege mag te maam Yaxya Laalo du wolof rek la man yàlla may na ko xam-xam boo xam ne euh, kiimaan la ndax day ñaan kon mu nekk loo xam ne euh, lu doy waar la ci mag ñu mel nii di dem ku mel ne tey comme noonu ma ko limee woon ci commencement bi ku mel ne baay Fallou Cissé ku mel ne ay Makhtar Seck Mbora ak euh, maam Yaxya ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne xëy na dégguñu leen te jangatoog fañ toog euh, dafa dafa dafa jar ñun ñu tiit ñun ñi nga xam ay ndaw lañ te war a roy. Mm-hmm. su ma waxee loolu nag am na ay kilifa diine yu dem. Mm-hmm. waaye anam bu ne ak na mu toll. Mm-hmm. kilifa diine yi metti na lool. waaye itam boroom xam-xam yi dem tam metti na lool kon réew mi moo toll foo xam ne tiit dafa jot. Euh, comme ni nga ko waxee aaroon na bala ñuy guddal maam yaxi laalu man lu ma xam ci aar moo ma ko xamal. dañ doon def euh, benn film bu ñu tuddee Fori Tànk ñu ko doon def yaakaar naa 2000 2016 la 2006 la man ak euh, kilifa yu bari yu nekk ci diwaan bi ay ñoom Pape rek ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne euh, ñi ngi fi ku ñu wax Babacar Ndiaye Soda moom moo ko doon réaliser muy doomam. yàlla dogal mu nekk film boo xam ne buy jàngale la. Mhm. comme li ma waxoon démb bi ma bi benn rajo invité ma ne ñun ñun ñi nga xam ne ay bindkat lañ. wala ñun ñi nga xam ne dañuy def luy des ëllëg war nañuy sóoraale sunu njaboot. ñun ñi ngi koy defloo ñun ñi nga xam ne ñoo koy defloo nit ñoo naan aaroon na jouer rôle bi wala diw defal rôle bi war nañu sóoraale ne kii dafa amul njaboot. Mhm. te it lim fi def luy des ëllëg la. ci ak njaboot ndax boo xoolee maam yaa ngi xalaat ñun liñ ci xam. Mhm. daanaka lu lu mat juróom-ñett fukki at yoo xam ne wala euh, bu ko manqué tam xay na. dund na ko ci wàllu aar wala def na ko def na rajo parce que rajo rek euh, RTS rek mas nañu waxtaan mu ne def na fa daanaka ay at yu bari mhm. ñëw def fii ak euh, lim def Touba Fall ak diisoo. boo xoolee ci internet bi mosoo gis wala nga xool ci comme comme internet mooy def buzz. Hmm. mosoo gis ñu ne moo def loo nit rôle bii nga xam ne ñàkk na kersa wala def na euh, loo xam ne ñàkk na teggin. Hmm. wala lii jàngalewut wala yarewut tey tey boo xoolee tey fi mu doon euh, jàngalee tey maa ngi doon déglu benn wax boo xam ne man dafa mu ko waxoon mu woo ma ñuy waxtaan mu ne nit ki yenn saa yi mu dugg ci mbir suñ borom yombal ko. yenn saa yi ñu naan diw mii li mu xam fu mu ko jàngee wala fu mu ko jëlee te fekk loolu liggéeyu ndeyam kon yàgg naa jàngale ci ne nit jigéen buy sëy mhm. war naa mën a góorgóorlu ndax li nga xam ne mooy dimbale ak njabootam mhm. moom moo koy liggéey ci këram mhm. loo xam ne dana tax ba doomam su amee gàllaaj gi da koy gàlloo ngir cosaan la waaye liggéeyu ndeyam bi nga xam ne moom moom la def ci kër baayam moom moo koy sauvé ba ëllëg yoon wu mu jaar. Hmm. dinañ xam ne diw mii lii moo tax. kon euh, bu ñu xoolee tey am na benn euh, léeb bu mu def boo xam ne mi ngi ko tuddee euh, Modou Massina mu xam ne foofu da ciy jànge da ciy jàngale ak njàmbaar. Hmm. ci nit ki nan lay mën a def ba nekk jàmbaar waaye nan lay mën a def ba nekk bañkat te moom Modou Massina boobu histoire la boo xam ne tey. yow soo koy déglu tey soo ko donte ñu bari nettaliwaat nañ ko soo koy déglu tey dafa am lu mu lay jàngal lu bari loo xam ne da ngay xam ne kii ban ban ban nit la kii bu doon tey France la nekk wala yeneen dëkk yi. Hmm. ñun ñun ñun ñun ñi nga xam ñoo nekk Sénégal parce que hmm. comme ni ñu waxee ci début bi suñu complexe àgg na ci ba dañuy jëli ay livre am te pourtant ñu hmm. ngi wax ay ay ay. ay Molière rek ay euh, ñeneen ñoo xam ne dañu bind ak ñeneen ñeen ñoo xam ay bind bindkat lañ. Hmm. Euh, euh, tey boo xoolee littérature bi dañ la koy jàngal nga xam ne tey tey ku mel ne maam nga xam ne ñooñ suñu daan bind. ñoom suñ daan wax dañ daan yor këyit mais ku mel ne maam nga xam ne amul benn lépp boo xam daana ko def bàjjo. Hmm. benn ndeyam ak yeneen ak yeneen yoo xam ne bu ko daan def da daan toog du yor këyit. Hmm. te li ma ci gën a motiver mooy ñun. Euh, yaram yar bi bi mu andi woon euh, sëñ Massamba moom moo garaaw ndax da daan toog. surtout loolu concept la boo xam ne suñu naataango Touba Média yi ñoo koy defoon mu nekk lu am solo da daan toog xale yi wër ko. muy wax ak ñoom. waaye xale yi mi ngi wax ak xale yi. waaye mi ngi wax ak ñi ci bitti. ñi kër yi ndax. waaw kay mi ngi wax ak ñi ci kër yi. mais mi ngi wax ak ñeneen ñi nga xam ne ñoo toog di déglu. nga déglu lépp yi muy def. doo ci dégg benn boo xam ne wala lenn loo xam ne nii dina tax nit ki. ñàkk a fonk waajuram wala nit ki ñàkk bàyyi xel ëllëgam wala nit ki ñàkk fonk këram wala nit ki ñàkk a dëgg surtout li xew ci jamono ji nga xam ne nit ñaare lu mu la wax rek boo xoolee dina am leneen loo xam ne day mel ne daal wax mu dañ comme ni ko benn waay waxe woon day mel ni comme ni mbuus yi mel <laughs> nga xam ne mbuus yi dafa bari ci mbedd mi daanaka léegi noonu la wax mu dañ mais nga xam ne tey ku mel ne maam Yaxlaal da doon jàngale ngir xeet jikko jooju nga xam ne comme nekk ci yow kañaan soxor ñàkk mën a téye sa sa sa sa sa njaboot ñàkk mën a fonk say waaju te mm. fonk say waaju ku ko def da nga téye sa njaboot. Mm. nga xam ne loolu da koy dindi ci nit ki kon daal Arona mm-hmm. su ma dee wax mooy ñàkk nañu euh, bibliothèque boo xam ne vraiment kàggu goo mm-hmm. xam ne tey lépp loo xam ne euh, dem dem nga ba yaa ngi koy wër soo demee di nga ko fekk ci moom tey su fekkoon ne tey tegaan nga ay waxam di ko déglu da ngay da ngay wax naan kii kii moom moom ban genre la man dafa may yëb am na benn jour ma di ko tooñ ne ko maam daal man li ma jaaxal mooy. Mhm. dafa am sa euh, loo daan def fële bi nekkee ci rajo diisoo sa concept boobu daal moom jël naa xaw ma nag noo may def ndax gis naa ne ku mel ne maam yaxalaalo nii. Mhm. xëy na pour nga am ku mel noonu dana jafe. Mhm. mais il faut nag ñu jëm a am ay ñu jéem a créer ay nit ñoo xam ne dañuy jéem a góorlu di roy ci maam. wala di xool ni maam daan doxe ñuy roy ci moom ngir doxal. Euh, euh, ñu mel noonu nag bu nekkee cim réew bu ñu bàyyi seeni i mbir rek wala seeni i mbind rek ñu naax saay maa ngi fàttali ku mel ne baay Fallou Cissé am na benn site bu mu yoroon boo xam ne mi ngi tudd Walafal hmm. nga xam ne vraiment sama arsif yu bëri yu archive yu bari mi ngi ak man. bu ñuy wax kànnaar loo yéen gis na nag kànnaar loo dëkk la boo xam ne dëkku cosaan la di dëkku diine. fii Modou yaa ngi koy gis mu toog ci piliyaan bi wala njoowaan gi mu amoon fa nag daal di sa jolub solub tengaa dem yor lu mel ni téere xale yi toog wër ko ñeent juróomi xale yi ngi ni toog wër kon kon mooy li wax ju ne tuggum ay seere waaw ci diggante ñaar ñoo xam ne dañu doon sëy xam naa suñuy wax jobbe du fi xaj ndax xam naa yéex gi nga yéex a. non alaaji euh, comme li nga noonu nga ko indi noonu. Mm-hmm. dafa dafa dafa dafa sedd xol. comme mooy li ñu wax ne. Mm-hmm. xam naa kook moom ngëccul mm-hmm. géej. Mhm. kon dañuy dañuy dañuy tànq tuuti rek. Mhm. li ci des ëllëg des koy àggale. waaye koor na géej taxu koo jóg. waaw <laughs> mais daal lu lu daal mooy li ma <laughs> comme li ma li ma ko waxee mooy. Uh-huh. jaaru na mm. foofu comme comme waxtu bi mi ngi dem. waaw te xam naa yombul da nga. am am na benn euh, nu ngi ko jawaatee fu ma gën a bëgg nga mm-hmm. insister fa. Mm-hmm. dafa doonoon ko ubbiku. Mm-hmm. tey soxorutoon. soxorutoon ci milieu média. gis nga loolu parce dañuy gis ñi ne ci milieu média dañuy soxor. nga loolu wax noonu. Mhm. man am na lu ma ci mën a seere. xam nga ci tàmbali bi maa ngi koy wax nee naa bis dana ñëw dinañ ko gën a leeral maam yaxi laalo woo na ma benn jour ne ma maa ngi daaru tanzil daal di mag booleeg xaritam bi ñu toogee fii sax woo naa ko mais nee na xolam fa mu toll. moo tax xëy na du mën a woote. Mhm. ku ñuy wax Baye Basirou Seck. ndax moom ci boobam moom xam nga loolu ku rafet xol moo koy wax. Mhm. man de am naa sama doom joo xam ne yor na rajo. te ku am kóllëre la tayit ku ma déggal la lu ma ko wax lay def. te gisuma ba ma waaye wax ma ko ma ne ko maam kooku jëlul muy def demande. Hmm. kër gi sa kër la. Hmm. man lu ma xam ci aar yow la. tayit pour wan la ne nit ki comme li xew léegi nga xam ne micro xam nga micro dafa yaatu. Hmm. nga xam ne daanaka léegi nit ñi dañu da ci am ñoo xam ne ni buñ sañoon ñoom rek ñooy wax wala ñoom rek la ñuy dégg. moom loolu de man xawuma ko ci moom. ndax maa ngi fàttaliku benn jour benn groupe whatsapp bu ñu bokk ku yor whatsapp bu sama secrétaire dugal ci am mbir muy dem bay def témoignage ci man boo xam ne toog naa ay fan dugg ci groupe bi di dégluwaat dégg ko boo xam ne def na ko ci man te bu doon comme li nga xam ne tey Arona mi ngi rajo Zik man maa ngi fële kon naa fexe daal sama mbir rek dox du ma sañoon aaroona day fay hmm. jikko boobu man xawma ko ci moom ndax man daf ma daan woo di ma ñaax daf ma daan woo di ma dolli dara moo tax ma ne bokk na ci man li nga xam ne du ko fàtte ba ilaa yawmi diini mooy daf ne ma woon na nga ñëw sama kër ñu waxtaan. Mm-hmm. mais ay jafe-jafe tax ak ay xat-xat yu ñu nekkoon wala ñàkk a toog parce que xam nga yàlla dogal na comme technicien demuma fa loolu. comme ni li dal aaroon moo ma dal foofu nga xam ne tey yóbbaale na xalaat yi ma waroon a wax te moom dañ daan waxtaan ci lu bëri mm-hmm. da moo daan tëb te li gënoon jafe mooy mag moo xam ne mm-hmm. sëñ bi euh, liñ naan kóllëre daf ko am. Mm-hmm. ak yitte. Mm-hmm. mooy daan jékki-jékki jël téléphone am woote. Mm-hmm. woolat nag te bu lay woo man sax man daf ma daan woo mu yàgg ma ne ko maam te ngaa bàyyi ma woola. li confirmé loolu mooy. Seex Sow Neex Sow ñu ngi koy nuyu. ndax bu siiwee tey ginnaaw yàlla ci milieu média Ibrahima Ndiaye maam yaxi laaloo nee na ma barki démboo Ndiaye ba mu mujjee woo ma tagul ñetti fan mu ne ma dama la nee na daf daf koo woo jotu ko seex mooy wax de démb ci guddi moom yëgutoon ne Ibrahima Ndiaye wàcc na ndax dafa génnoon man maa ko wax. Mhm. démb ci guddi la ko yëg. mu ne ma barki démb woo na ma. Mhm. ma tagul ñaari ñaari fan wala ñetti fan daal. Mhm. nee na ma ne su ma paree woo ko. xam nga dama doon julli xaw ma mu pare nag yi tey yi tey yi tey. waaw waaw kon moom kon li firndeel loolu loolu moo am na loolu ci la ma fekk. ndax am na émission bu ñu daan def euh, diisoo. Cheikh Sow moo ko sponsorisé woon te Cheikh Sow dafa yàgg man li ma neex ci Cheikh mooy. ñun daan nañ ko tooñee sax pël bu dégg wolof mm-hmm. am na yóbbalu suba bu ñu daan def boo xam ne maam daan nañ def émission boo xam ne fajar la man maa fa daan nekk bu ma fa nekkul ma job si la wala Pape Kane émission yooyu Cheikh Sow def ci daan duggu nga xam ne kon nit tam da ngay fonk li nga doon mm-hmm. xëy na alpulaar la mais sénégalais la mm-hmm. comme ñun ay sénégalais lañ moom moo tax fexe dégg na la mu doon. Mhm. ba pare ñëw fekk ñu ci liñ doon te est-ce que sax gënuñu ko dégg. Mhm. loolu nag dafa nekk lu am solo mais li may wax daal Arona mooy. Mhm. ñun ñi nga xam ne ay ndaw lañ ak ñi ñuy déglu. xañ na déglu toog di déglu si sax lu am solo lu am njariñ la. mais yenn saa yi nga déglu loo xam ne dafa am feneen fu mu lay jëlee. ak feneen fu mu lay yóbbu. dara ëpp ko solo. Oh. ndax fi mu nii tey kaset bi nga toog di ko déglu tey nga téléchargé benn affaire comme ku mel ne tey maam Yaxi Laalo wala ku mel ne Baye Fallou Cissé wala ku mel ni Makhtar Seck Mboro mu lay jàngal jamono. Mm-hmm. te gis nga xam li gën a neex ci àdduna mooy nga xam jamono. Mm-hmm. soo xamee jamono ku la tooñ doo tëb tëb dóor ko. Mm-hmm. ku la saaga doo tëb tëb fayu. te ngay wax ak ñu xam jamono sooy wax ak ñu xam jamono dina tax am lu la naqari yow doo ko faj ca saasa comme ni ngay wax dama tàng dënn ku xam jamono du tàng dënn. ko xam jamono du gaaw a gedd <laughs> ndax waaw dëgg la waaw ndax <laughs> li koy li koy suuxat mooy tey yow Arouna man de déglu woon naa maam yaxi laalo léeg nga gis koo xam ne yow mm-hmm. moo di Diop mm-hmm. la muy gedd bu ko geddoon ca ndorte la mm-hmm. fam toll bay gedd du fa toll dëgg la te gis nga doy waar laa wax nag lu léeg nga gis kuy gedd dara la muy gedd bu ko geddoon ca ndorte la fam toll du fa toll ba di ko gedd dëgg la Euh, Arouna moo tax di wax ak mag <laughs> foofu dama ciy nuyu sama xarit Serigne fay moo tax di wax ak nit baax na te yenn saa yi nga déglu ñu xam jamono comme ñi nga xam ne dañuy jàngale comme tey nga toog nga am lu la naqari lool nga ne xaama déglu sañ Moussa Ka am natt mu ne ah la yàlla jox xarit ba ci maqaama mm. te mënu koo jëf natt lañ koy xayma oh. nga toogaa déglu mu ne te bala laa wóolu ba jox la mbir ya mhm. foog mu natt la ngaaw ci tànki mbër ya hmm. xam nga xam nga aaroon ne eh. loolu loolu eh, loolu te loolu eh. loolu li la koy li la koy mën a jox mooy ngay ngay déglu ñi nga xam ne xam nañ jamono mhm. te mooy ñi nga xam ne duñ la wax dañ la dugal ci ay mbëggeel mhm. rek xëy na mbëggeel sa baax na parce que ñun ñëpp a bëgg ku ci bëggul euh, lii bëgg nga sa soxna kon di déglu ñi nga xam ne dañ lay dañ lay dugal maanaam dañ lay dugal ci jamono nga jàngaat jamono. Mhm. xam ne kat. dañ lay orienté bu baax waaw kay dañ lay orienté. Mhm. nga xam ne kat a ah, sama njaboot gii maa leen jur. Mhm. wala maa leen yilif man sama baay yilifoon na ma. defoon na ci man. la waroon a def. dafa am benn jour may toog ak moo tax ji nga toog ak sa waajur dara gënu ko may toog ak sama waajur bu góor di waxtaan ak moom. mu ne ma moo dama lay dénk mbir ci jamono. mu ne ma gis nga yatt yi. looy yóotu. jotoo ci ba mu la tax a découragé. looy yóotu mu xëppandoo sa kaw. ba mu la tax a naagu ndax toq-toq moo gën yuréet. dañ fa loon ko wax. ma ngoog mu ne beneen bi itam mooy. képp koo xam ne yor nga soxna. da xam ne sa yaay moo daan tooñ sa baay. kon adduna muñ muñ lañ fi santaane te mag ñu mel nii ak ñeneen ñoo xam ne nii ñu ngi jàngale parce que dañuy jàngale ci kàllaama gi nga xam ne wala xam kàllaama sax xam naa da nga ma corriger baatu arab baatu arab la mhm. dañuy jàngale ci kàddu gi nga xam ne ñun moom lañu nàmp mhm. dañoo jar di bàyyi xel nag mhm. ndax dana tax nit ki am dal dana tax nit ki yaru dana tax nit ki xam nu muy dundee ci àdduna tey dana tax nit ki am jom te li ma gën a neex ci ci lépp yi nga xam ne maam daana ko lépp mooy yow daf lay jàngal jom te jom moo jafe fi mu toll nii te jom bu jafee jomb day euh, jomb dootu amati mooy waral ah man de ñàkk naa fee bu ma fa demee dinaa am xaalis te duma ko liggéey ndax xëy na sama lo sama xel day dem ci. Mhm. nafay jàmbur yi. Mhm. foofu jomb amatu fa. jomb amu fa. daf ñu jàngal la mhm. nga xam ne tey man ah man dey war na maa yor kër. war na maa am oto. waaye nag war na maa dimbale samay waajur waaye nag war na maa dimbale samay makk ak samay rak yi nga xam ne nii man judduwuma toll nii te jaaruma fen loolu yëpp soo demee ci léeb yi nga xam ne maam daana ko def ñun sax buñ nee léeb sax ñu bari dañ yaakaar dañ naan bukkeeg lëbëg jinax ak kéwal te fekk demewul noonu moom eh. dafa lay nettali ay histoire mais lépp lañ ko mën a conte et légende comme ni ko tubaab di waxe lañ ko mën a tuddee mais du lépp am njàngale la ndax comme ni ma ko waxee li mu lay jàngal mooy jomm ak jom nga dem ba da ngay nekk nit ku am qualité loolu itam nag li ñu koy may mooy du ñu topp rek xëy na comme ni koy waxee euh, topp see bi bañ a topp see bi parce que gis naa ne. see moom dee bi rek la lay jàngal. kon nag ñu bañ a topp ñun suñuy kàddu rek <laughs> fàtte auditeurs yi. voilà 33 976 21 43 képp koo xam ne am na lu mu bëgg a seede dolli ko ci lii El moo Modou Diop Thiat mu demagul màkka wax mën naa daal di tàbbi foofu yi ci Zik FM 93.8 mbokk mi ci ligne bi asalaamaaleykum. maaleykum salaam. ku baax ki ñu ngi lay nuyu. sang bi ñu ngi leen di siyaare waay. kooku de sama baay la. <laughs> baay dëkk. ah rëcc na bàyyi dëkk moom itam. Euh, maa ngi fàttaliku da daan woote ci émission yi. Hmm. vraiment comme ni ma ko waxee rek tey xam naa bu toon xew-xew bii am. Hmm. maam yaxi laalo dina am mbooloo mu bari. xam naa Modou maxtaar Diop Benno FM amoon na yéenay dugg lool. Modou. waaw waaye xam naa waxtu ñu xaw a xoj. waaw mu ngi doon woote sama téléphone waaye fi mu ne xam naa bu duggee moom ndeysaan. Hmm. Euh, tabaarkalla. ñu ngi koy salaam wa maa ngi leen di siyaare bu baax. Baye Sayer Touré wala. Mouhamadou Bari ndongol eh, Darou Mouhamadou Bari Baye Mouhamadou Bari. Mbacke Balla sëñ Modou. yow nag sama auditeurs yi fajar yi yamoo daan yaa ngi may. fàttali yëpp laa nangu tey dee leen déglu tey nii la. Ah, sëñ bi moom damaa xaw a ko sax waaye wax dëgg yàlla moom. Mm-hmm. bala may wax ci dara moom maa ngi siyaare bu baax tey ñaanal suñu maam ju baax jooju ci sàmburam jëlee. Mm-hmm. yàlla na ko àllaaxiram daqal addunaam. yàlla na aw naqaram yépp yem ci àdduna ñu fi bàyyi itam yàlla na sa teg ci ñoom loxo boo ñu sut ko aw fan te dese barke ba yéen ñi nga xam ne yéen a ngi koy fàttali itam mm. di wax ci ñoom yu baax yooyu nga xam ne ñoom lañu daan defee te wallaahi la lu baax rek lañu daan def ñoom mm. maam Ibrahima Ndiaye de képp ku ko ma a xam wala nga daan dégg kàddoom mosuloo dégg ci moom kàdd goo xam ne gi da nga ci am naqari mm. saa boo déggee kàddoom rek kàddu gu neex lay doon gu nga gi da lay jàngal lu baax a baax a baax lu nga xam ne da nga ci mën a jëriñu tey ak ëllëg. jërëjëf yàlla na saa borom ko àjjana. wallaay mbokk barke suñu Tuubaa ak yéen ñoo ñi nga xam ne itam nag. yéen koy fàttali ko yàlla yàlla defal leen seen jërëjëf waay jërëjëf ak ñëpp ñi nga xam ne fi ñoom ñi ngi déglu it. rajo bi jërëjëf <laughs> alaaji comme comme comme lii doguma la. waaw. don dog naa la sax ndax yow da ngaa dégg wolof te fa tam nga corrigé ma <laughs> comme li Baye Amadou Bari wax dafa mat a sóoraale hmm. mooy wax day des hmm. seede nettali du màggat. surtout jamono ji ñu toll. salaam. ñoo ngi leen di siyaare bu baax. Mhm. tur beeg fooy wootee. Euh, Diouf Sampion la. aywa ni ngi lay déglu. waaw ñoo ngi leen di jaal sun maam jooju. jërëjëf waay. wax dëgg yàlla macha allah yàlla na ko bur yàlla yaram xaare ko àjjana. ci barke Serigne Saliou. wax dëgg yàlla daanañ teewlu ci moom ay léeb yu bëree bëri. ay keek ak dumu naan keek ak boobu ngeen doon wax léegi moo di machine wax dëgg yàlla dañ daan toog di ko teewlu bu baax a baax a baax mm-hmm, mm-hmm. waaw di ko ñaanal rek suñu borom yërëm ko xaara ko àjjana amin amin amin ci barkeb Serigne Saliou moom mboolem jullit bu mu fa fekk bu ko fa fekk rek mm-hmm. waaw yéen ñoo ngi leen di jaajëfal bu baax di leen ñaanal taw feex Serigne bi saadata daare noor daare na barke Serigne Saliou jërë ngeen jëf mbokk yooyu nga xam yëpp nu ngi woote di participer 33 976 21 43 Modou Makhtar Diop. Mhm. démb bi may wax ci groupe presse régional ma ne leen. Mhm. du dugal fi ku toll ni Ibrahima Ndiaye maam yaxi laalo ñëpp ne pat. Mhm. mën naa ñàkk. dëgg la. walla nga gis koo xam ne day dugal ab bët di jooy loolu mooy lan. <laughs> ku toll ni Ibrahima Ndiaye maam yaxi laalo dem. ak ni mu nekkee woon suñ kilifa ci liggéey bi. yàlla mayoon ko xam-xam. xam-xam bu rëy bu rëy bu rëy te mu wér ne kenn ku nekk ci ñun am na loo jëriñu ci moom wallaahi mu dugg ñëpp na pat kenn mënut a dugg ci moom seede moo tax ma dugg dal seen kaw koo xam ne gis nga biñ ko yàlla lay déglu seede yi bu nit faatootee nañuy seede ci moom lu baax waaye lan moo tax presse bi kenn ku nekk mënul seede jàpp diwoo baax jàpp nañ ne xanaa nit bu lay xatal di la xatal di la xatal ba mu xëy wuy ji boroomam xanaa mu war laa mën a féexal wallaahi la alaaj jaaji taal waxoon nag moo fi ne mhm. Sénégal ku faatu lañ xam ak ku dëkk fu sori. dëgg la. Mhm. ku faatu ku dëkk fu sori. loolu de wér na. kese lañ xam. am na nag suñ yeneen i mag yu fi ne maam Sadda Dieng ci la bokk. maam Sadda waaw. waaw kuñ war di jël ci rajo yi muy wax ay waay ah? man nag Arona maa ngi sant yàlla bu baax. yàlla daf maa boole ñoom ñëpp maam Sadda. Mm. sama maam ju baax la man maa ngi sant yàlla bu baax ba du ma bàyyi ba nit jóge fi. Mm-hmm. ma naan diw nangam. Mm-hmm. maam Sadda xëy na mi may déglu ku mel ne Baye euh, euh, Cheikh Gay Rijaal. waaw concept bi ma keree. ku am solo jëlee ko ci maam Laalo. woo naa sax maam wax ko ko. bàyyi seex laa ko jox te ba pare nag topp ci di ko cotiser. salaamaaleykum. aleykum salaam. ñu ngi ziare baax baax. la yàlla nangu turee fooy wootee. alhamdulilah. Baye Lahan Ndiaye Mariane Ka. ñu ngi rafetlu waxtaan bu baax a baax. maanaam yokk di leen ñaanal ndax euh, tànk yi ngeen nekk. Mhm. Euh, yéen nañ ci tànk Baye Fallou Cissé yéen nañ ci tànk Cheikh Ibrahima Ndiaye. Mhm. ndax maanaam euh, da ngeen a war di wax. wallahi ndax boo xool Modou Diop Diatta tey li mu fi développé fii. kii mm-hmm, mm-hmm. maanaam warul nekk toog di seere rajo ak a seere rek dafa war di wax. waaw même yow nu mu tuddati tur wi Arona. Mm-hmm. Euh, yow itam maanaam toog fii di animé émission tamit am na solo trop mais yow itamit da ngaa war di wax. des kenn ci rajo bi jël sa place. invité la yow. su wax su waxee dina jàngal ñu bari de. wallaahi parce que man xam naa waa juróom. loolu loolu laa dégg ci yow. Mm-hmm. te gëm naa ne li nekk ci yow moo nekk ci moom wala lu ko roos sax. Mm-hmm. wallaahi yàlla na leen yàlla taxaw rek. da ngeen nii dimbali ngi jëm ci Tuubaa ngeen wax. da mm-hmm. ngeen war a wax. jërëjëf. <laughs> yàlla na leen yàlla taxaw rek jërëjëf jërëjëf. <laughs> c'est ça alaaji kii li mu wax nii. dafa am solo. xam nga dañ naan nit jël ko ba pare. <laughs> xam naa auditeurs yi lay def ñu la ci bàyyi. wuyul. salaamaaleykum. maaleykum salaam. mbokk mi tur beeg fooy wootee. sëñ dëkk la sëñ dëkk waaw. yow kat yaa nit na nit di dugg. waaw bisimilah <laughs> bisimilah Guèye yam rek la. waaw Cissé. jërëjëf. Diop na ngeen def. ñu ngi lay ziar Guèye jàmm rek. nii ngeen de def de la seen waajur yee doon def. walaay ndeysaan. di fàttaliku nit ñu baax ñi. Mm-hmm. di wax ci doomu aadama yi lu baax. Mm-hmm. ku mel ni Baye Fallou. Mm-hmm. waaw. ku mel ni Ibrahima Ndiaye maam Yaxi Laalo. waaw mhm. Dampal Raxu. Mhm. Dampal. Dampal Raxu. waaw Dampal waaw Baye Dam. yal na leen ya sëñ Touba teel a teg leen fa mu fañ ko bëggee nun mhm. amin amin ndax mooy li gën. ci ñoom. amin Baye Fallou. nga yow mal waaye ay xiiwala nga fay fekk. yoo xam ne moo ko wax ci rajo yi ak. journaux yi. Mhm. ñu di ko denc nit ku ko ci liir wala nga déglu wax ji na leer ci leer yàlla ni wax jooju mi ngi mel ni rek sa tëddoo bu jox ay kiiwam ngay xelli ca na ba fële. Mhm. li ñu fi bàyyi ma nga leen di fekk yow mal xiyam. Mhm. yow nag aaruna. ñu ngi lay gën de gën a jaajëf. jërëjëf. man boo laajee mat jom moomu. ñii ma wax. samay hmm. wëllëre lañ woon dëgg la man kay xam naa si dara. <laughs> dëgg la wallaay ndeysaan. <laughs> Baye Fallou daa daana ma ñoddi ba wang ma ci bopp. ndeysaan ndeysaan. <laughs> ne ma nangam ak nangam ak nangam. Hmm. am na yu ma doon sol yoo xam ni yi moom. Hmm. wax ko lam ma sol rek ko wax ci rajo yi. dëgg la dëgg la dëgg fa mu nekk yàlla na ko gënal. Eh. fii mu nekk nag noonu. amiin amiin moomu itam. falilahi l amdu asuma ibrahima ndiaye maam yaxi laalo bé bégal nit ñi nu ñu leen war a bégale tey bégal gi yëpp génnul diiney lislaam kon nag ñoom ñi ngi leen sant te di leen ñaanal bu nu toll rek bu nu ñaanee bu nu jullee suba bu ñu ñaanalee sunuy waajur ñoom lañ cey teg ñu ngi ñu ngi leen di siyaare yéen ñëpp jërëjëf waay Arona nag yow moom war na noo gisee. incha allah dinaa la seet si dinaa ànd ak Modou ñëw fa dinaa ànd ak Modou ñëw fa. waaw waaw Modou moom Modou moom lépp dama dama dama koo denc ci sama poos. ndeysaan nit ku baax la. bëgg bëgg lay boole. ndeysaan est ce que incha dama leen denc fii ci sama poos moom. <laughs> allahu dëkk waaw. sama xarit la de xaw nañoo yàgg lool nag wax dëgg yàlla. <laughs> waaw. waaw xaw nañoo yàgg. jëf danaa fa ñëw. da ngeen di nit ñu baax rek. yow nit ku baax nga. yàlla leen yàlla taxaw lu baax rek la ñuy dégg nga di ko wax doo yàqule. amiin yaa ilaahi. jërëgën jëf jërëgën jëf jërëjëf sëñ Modou. nu ngi gërëm Baye Dëkk. Baye Dëkk waaw téléphone bu tuuti le temps que ñuy dugal Modou Makhtar. Mm-hmm, mm-hmm. Modou. Mm-hmm. ñu ngi lay gërëm ci bàyyi gi xel. xaj na yéex gee ñëw rek ci émission bi mooy ndeysaan gàllankoor bi. dañ koy jéggul bu baax. waaye noonu la ko yàlla tuddee. gis nga Modou ku mel ni maam Ibrahima njaay mii. Mhm. ku mel ni sëñ Fallou Cissé. Mhm. ku mel ni ku mel ni xoolal xam-xam ak dayoo bi leen yàlla dénkoon. Mhm. ak ni ñu tolloon ci Sénégal te mosoo leen a dégg ci naka sudul noonu. mosuñ jaay affaire kenn. xoolal Ibrahima Ndiaye maam xilaalo foo ko woowee mu wuyu la. saa boo ko wooyee dina la wuyu. nga gis koo xam ne ñaari fan rek la def ci métier média xamut dara émission ba mu yor sax su waxee ñaari baat yu jub ñetteel ba dëgg li mu wax dara baaxu ci Arona yaa ngi dégg bu ko sëñ dëkk wooyee mu koy tuutal Arona doguma la wala sax mu di ko coupé wala muy ciipatu sëñ Modou doguma la Arona doguma la li nga wax ni dafa am solo gis nga maa ngi fàttalikoo maam yaxi laa la bi mu ñëwee diisoo hmm. mi ngi yor benn rajo ma jób si la mi ngi may déglu maa ngi koy ziar léegi mi ngi doon woote xam naa dafa jéem ak siwul hmm. bi ma ñëwee ni ñu ne ma ma jób si la ne ah, moo ne ma ne ko maam man mu ne maam laal maa ngi ko fekk te mi ngi gaari otom ci buntu rajo bi ak ni mu wooyee fale boppam sol benn caaya ma ne waaw maam ma ne eh, ma kii mooy maam yaxi laal ne ah maama nga ne de ma ne ah kon de loolu mooy loolu kon de am njàngale la moo tax baat bi nga ma wax léegi mm-hmm. xëy na ñu bari duñ comprendre mooy baat ay directeur ak nangam bisu mel ne bisu maam yaxi laalo yeeg bis yu mel ne bis yeneen i kilifa yi mm-hmm. ñi fi jaar nii mm-hmm. dafa jar tax nit ay baatu directeur ak xay na mën nañ la koy wooyee mais pour man jërul mu lay neex xam nga lan moo ëpp solo xam kan mooy wax mooy ak amuk taalibe mhm. ndax lépp lu nit yóbbaale lu lépp lu fi nit yorul yor lu dutu taalibe tur wi njariñ li bari njariñ li bari tur wi mhm. am na solo amul solo waaye li ëpp solo mooy jëf ji mhm. bu ñu lay wooyee directeur la ñuy doyee directeur doy ca tur wi rek doyut Ibrahima Ndiaye maam yexe laa la tudd Ibrahima rek doyutoon ci moom daa fexe ba jëf dëgg la ay baay mooy bàyyi mu Ndiaye ak yooyu yëpp jëriñu ko. amul njëriñ yooyu yëpp amul njëriñ te moom tiituroowu ko woon. te it liggéey na fi Fallou Cissé mooy baay Aaroona tiituroowu ko woon. Mhm. man nag doonte doon naa ko. ku dégg tiitaroo gi nag mooy xam-xam bi ko yàlla dénk. Mhm. ba pare itam. xam-xam bi ko yàlla dénk. Mhm. waaye tiitaroo ma ne sama baay daa siiw. déedéet. beneen bi ci des mooy. maa ngi koy wax sànq far yàlla dogal nga am looy indi. yàlla rek mooy yàlla te moo kéemaane. dëgg la. barki démb dañu am mbokk mu wàcc liggéey. Mhm. ñu noppi ma jaar ci barabu sëñ fàllu Cissé keroog aljuma di ko ziyaar di ko ñaanal. Mhm. waaye bàmmeel ba maa ngi fekk ñax yi sax fa ba fees del. Mhm. keroog sama rongoñ dafa tuuru ma ne yàlla rek moo man xoolal sunu borom. Fallou Cissé mi woon ci kaw suuf. si woon lool. nga xam ne Sénégal bu doon pour cent fi ne ñaar ñi xam nañ ko. Mhm. tey boo ñëwee ci bàmmeel yi doo ko xàmmee. mooy la maam Abdou waxoon rek. bàmmeelu Fallou Cissé taxaw naa ab diir mënu ma koo gis ndax ñax mi. Mhm. Mhm. te bu maam yaxi laaloog bu keneen ba ci ñun fa la ñuy mujj. ay waaye tey ñoo rafetal. tey maslaa te bàyyi boddi konte bi ak siisante bi ak yàqalante bi nen ba loolu lool baaxul te nag mbër mu ye maanaam Euh, nuñ ko ci waxee pexem yàlla moo gën pexem nit na xam. fexe yàqkat yeggu fi. ok mu ngoog. am na kok. Mhm. saa boo ko bëggee yàqal. Mhm. mën naa jeng bay waaja daanu mhm. waaye du mas a yegg suuf. te nit ñaa ngi ci biir nit ñi gaañaa ngi ci biir gaañi. fii toujours dama fi insister Modou Makhtar Diop nit ku baax la. dëgg la daf ma woo ci suba. daanaka moo ma yee ci lal. dëgg di rafetlu kàddu yu ma wax ca groupe ba. est-ce que est-ce que. barki démb ci ngénteel Babacar Sambale yi ma dékkee micro. Mm-hmm. foofu laa gën a insister. Mm-hmm. nañu gën a bennoo ñun ñu ne ci milieu média. Mm-hmm. ay waay te ñoo bàyyi iñaanante beeg yàqalante bi. maa ngi wat ci yàlla ne bis. nit dem na ci barab. am kilifa gu muy waxal kilifa gi ne ko numéro aaro na laa soxla. mu ne ko yoruma ko ndax maa ngi moom duñu wax. te fu ma ko fekk nuyu ko. te xam naa ko. loolu loolu moom. loolu te fu ma fekk day mel ni ku may siiñ ba mel ni ku may bëgg a lekk. loolu moom Arona du émission bi waaye ñun denc nañ ci saako. te lam ko wax mooy maak Arona duñ wax. <laughs> te maa ngi wàcc yàlla fu ma ko fekk nuyu ko. Arona Arona xoolal tëjal foofu loolu moom. Mhm. émission bi loolu taxu koo jóg waaye ñun denc nañ ci ay livre man man yooyu dama ci dugg. yooyu dama ci xuus denc nañ ci ay livre. yoo xam ne tey moo mooy nañ bàyyi soxorante bi rek. kon Modou Matar su fekkee mën na dugg benn minute ñu mhm. tëj ndax daanaka ñetti minute moo nu dese Modou mhm. waaw xam naa li ñu bariwul. waaw dugg si na sëñ Modou Waxtaar. Mm. Mm. waaw moom nag mi ngi dagg rek. waaw xam naa xaw ma dafa takk écouteur xaw ma maa ngi koy woo ay yoon. sëñ Modou kon waaw xam li ñu dese bariwul daanaka ñetti minutes moo ñu dese waaye mm-hmm. tàggatoo bi dañ la ciy sant. waaw kon nag sama kër sant ci kër gi nga xam ne. moom la ñu fekk si boroom muy euh, suñu nijaay Ablaye Fam. Mm. di sant itam ñi ñu doon déglu. xëy na wax bu baree asaka mënu cee ñàkk waaye luñ fi juum itam ñu ngi ñaan rek ñi ñuy déglu ñu jéggal ñu ko li ñu bëggoon a wax bari na boo gisee ñun yàlla dimbale ñu ci rajo ba du ñu wax ba ngàbb kayit lu ci bari dañ koy inspiré ci suñu maam ñooñu ak suñu mag ñooñu fi jaaroon tey may ñaan ndaw ñi bu ñu daagu bu ñu naagu te bu ñu bew bu ñu rëy itam. tabaarakallah jërëjëf sëñ sëñ Modou ñu jël Modou Makhtar rek benn minute balaa ñuy tàggatu sëñ Modou Makhtar salaamaaleykum. waaleykum fàttali ne yaa ngi nekk ci rajo Benno FM. waaw su ko defee rek xam naa ne ñaari minute mhm. waaye li ma bëggoon wax lépp rek. sëñ Modou Thiat mu toog mhm. yóbbaale na ko ak eh, yow mu nga xam ne yàlla dafa émission bi mhm. ak bopp nga xam ne ñoo woote xanaa rek eh, buñ ko tënkee mooy sant gërëm la ñaanal la yàlla may la kàttan ak man ak yegg ak yeggale mhm. ndax xam nañ ne eh, yoon wi ngaaw fi la sa bu baax sa xob na la yàlla may kàttan ak man ak yéen ak yeggale rek loolu rek lañ ci duggee waxtaan am na solo lool noonu lu lu ñuy wax gëm te euh, néew ma sëñ Arouna daa nekk ba ci groupe bi damaa dama ko yàgg yàgg a bàyyi xel wax te ànd ñu ci benn rajo rek. Mhm. àgg na kon yal na yàlla sàmm taxawul yàlla def ñu jëlal topp xam naa incha allah beneen jotaay incha allah. jërëjëf dégg lool. yàlla yàlla fay la yiw Fallou Sow kon ñu ngi lay nuyu Youssou Kane ñu ngi leen di jaajëfal sëñ Modou Diop Thiat. kon xanaa dañuy dig daje si biir rek di la sant. Mhm. di la ñaanal yokkute ndax comme li nga ko waxee ñun yàlla dogal na loolu nu ndax rajo yëpp bu ñu dem dugg. Mhm. amuñu xolu kañaan. waaw yow moom nit ku baax ñu ngi sant di sant itam yow itam nit ku nga ndax gis naa toujours sa émission ni nga koy doxalee. koo xam ne sama wëyu da daan def émission di sa tur di la nuyu. Ah, maa ngi maa ngi émission yi fii. jërëjëf ñu tuddee Modou Diop Thiat RFM. jërëjëf maa ngi lay sant yow di sant sa <laughs> technicien bi ak waa kër gi yëpp. di nuyu mboolem ñi nga xam ne nii ñoo ñuy déglu ñëpp. di jéggulu rek bu baax jërëjëf. mi nga kon jërëjëf Modou yow it ci xat-xat yi xam nañ ne xat-xat yi bari na nga bàyyi sa yitte bàyyi sa liggéey man ñoo wuy si ngir yëmmi sëñ Ibrahima Ndiaye yal na ko yàlla yërëm liñ koy waxtaanee lépp baax na waaye buñ fàttali di ko ñaanal mhm. kon ku ko mën a jàngal fukki lixlaas ak benn ginnaaw faatiha nga yéene ko ko yéene ko bépp jullit su ko defee ni nga koy sàkku di ko sàkku di ko ngeen ñaanal ko ko ñu ñaanal ko ko incha allah yàlla yërëm ko te jéggal ko waaw jullit moom ñaanal ko njërmande yàlla ak njéggal lu am solo la waaw lu mu baax baax baax ak lu mu baaxoon baax su ko defee nag ñu bàyyi ci xel mhm. waaw ñim fi la alaaj taal sisem cene ba waxoon dem baax na ba fi lu baaxit baax na waaye ba fi ñu baax ko ëpp solo kon ñu ñim fi bàyyi nañ xam ne seen wayjur ku baax la woon nañ xam ne seen wayjur musut tànkam lu kenn musut tuutal kenn te am na dayo bu ko yàlla dénkoon waaye musul yëg boppam ci micro bi tiim mi ngi mi ngi yëg ñi muy waxal di yëg boroomam kon nag képp kum jur nga bokk ci moom Mhm. ba ci man mii mu ngi noonu kon maam Sada Dieng ñu ngi koy nuyu. Mhm. di ko jaajëfal ah, ma kii looy tàggoo. waaw di sant tey moom moo dooma jànn xeloo ndax tey sant daa ñëw dominé ma <laughs> waaw ñu ngi santaat sëñ Mourou ndeysaan sëñ Mourou euh, di waaju bu baax di indi di rafetlu ay kàddoom wax dëgg yàlla di santaat tamit euh, sunu technicien bi di santaat tamit sëñ Aaroon wax dëgg yàlla kàddu yi tamit lépp am na solo tamit maam ñett moom desewut loolu li si àdduna mm-hmm. euh, mu jege fi tamit nga ñaanal ko seede tamit seede yu rafet kon ñi ngay ñaanal jëm dàqal fu ñu jógee mm-hmm. ñi ngi rafetlu tamit maam képp bàyyi xel euh, rajo bi rek ñu ngi lay gërëm bu baax a baax a baax mm-hmm. jërë ngeen jëf jërëjëf kon mi ngoog yàlla yàlla def jàmm Massamba Sarr Kazu Rajab boisson beeg kafe gi am na solo ñu ngi lay gërëm mm-hmm. teraanga yëpp jërëjëf ñu ngi lay gërëm bu baax a baax ma Diop Thiat ñu ngi lay sant di la gërëm euh, di gërëm auditeurs yi ñi yegsi ñu ngi leen di sant di leen gërëm ñi yegsiwul ñu ngi leen di jéggalu ki nga xam ne moom mooy Abdou mi nekkoon ci wàllum technique bi ci kanam tuuti ñu ni neen day daara Diop mbokk yi lu ci jub nu sante ko yàlla lu ci dëng nañ ko jéggal rédivision bi